koy damay bañ ngeen damay bañ ngeen ñi am jabar ngeen moytu ko rek. garam kooku garam ko garam ki am na doole de booy. léegi papa. Hmm. dinaa la boole moom. billaay. waaw léegi. jox ma numéro am. dama lay jox numéro waaw waaw moom moom am demee sax yow saa su ko bëggee. Hmm. ceg-ceg bi da koy indi ba sa kër te doo sonn moom livré ba ko fii waaw livré ba sa gàll te doo jóge fii ah non dañuy xam ni maa koy naan ak yooyu rek non non moom du ko xam surtout xanaa bu ceg-ceg bi mu ma ne ko ma ne ko sa biir bi métteeg yooyu non ceg-ceg bi sax wax ko leneen rek dama dama temps yi dama am insomnie cag-cag su mus la koy def soto lay doon kenn ah mu koy jox moom kenn ko xam kenn du ko xam très bien yooyu yëpp jar naa lijjanti moom moo si moom lay liggéey waaw mu ñëw jox la ko waaw soo bëggee doo ko woo da nga koy vocal rek si numéro rek whatsapp mu defal la waaw man nag ma koy woo léegi dama lay jox ñaari numéro waaw yow nga gàdde ko waaw soo ko woowee waaw foo nekk mu fekk la fa wala foo bëgg tamit waaw nga dem fa defal ma fii ndax fi mu dëkk solo mu ngi nii numéro baa ngi jël waaw moom mu dëkk solo waxal numéro bi waxal numéro bi 77 dafa ñaar set waaw 378. 378. 78. 78 encore. 18. 18. bii mooy numéro 378 78 18. waaw kay. bii mooy numéro waxukaay WhatsApp. waay waay waay waaw appel bi nga soxla. waaw appel appel baa ngi nii da ngay defaat mënul WhatsApp. waaw da ngay defaat 77. 60. 17 encore ñaari 7. waaw nga nga def 571. 571. waaw 77. 77. 07. wuyu ma bu ko bu ko woo ko damay wax damay damay dem papa maa yàqam. demal. am na lu neex mu si woote la. allo mu tudd. sëñ Habib Dia. sëñ Habib. Dia Dia Dia Samb Samb Alaaji Saneex Samb Dia booy. Famara booy ma jox sa numéro. waaw man bàyyam laa waaw. waaw man man maay bàyyi ñànku ñànku ñànku moom ñëpp xam nan ko. <laughs> waaw waaw waaw day ñëw foofu ci yow war nga maa dimbali ci ay mbiram de ñaa ngi ko de daa luubu te day waaw daal waaw waaw ñoom Saalum daal xam naa ne <laughs> waaw waaw aw ma nu boog yow daal waaw kër gi daal léeg-léeg mu dox léeg-léeg daal kër gi doy daal waaw waaw jàmm du fi am waaw Saalum daal saa yu dugg see ci biir kër gi daal kër gi am jàmm waaye bu Saalum génnee rek waaw day c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué waaw c'est compliqué aha Parcelles Assainies unité de santé bi dugg si mbedd ah, bu ñu nee nga si mbedd poste ah. fu la laajte foofu rek ma nga fa ma nga fa góorub Saalum baax na dinaa ñëw tout de suite kay damay ñëw ay pot laa ci bëgg ay potu stock ma ci amoon sama benn doom naan lépp hmm. sonnoon na kay jërëjëf jàpp jërëjëf. Mm-hmm. jërëjëf papa. kii kii kenn du xam. merci naan da ngay am gàcce si jigéen. jërëjëf doo ko xam ne am gàcce mukk. baax na waaw jërëjëf dinaa noppi man sama diggante yow la incha allah. ah booy diggoon nañ ma fi noppi waaye fa mu mujj neexuma. ma ah. kay ngeen xam naa fa rek gay bu la neboo takk leen rajo yi. <laughs> ay ay Habib Dia. la waxoon takk leen rajo mën ngeen a koo takk. Ah. booy merci waaw nuyu ma ñaan su nekk jaaw naa fi. ah ndax dégg naa dafa ñëwoon kër gi dem a seet. waaw baax na ah. jërëjëf dinaa ko jërëjëf baax na ay sëñ Habib Diagne noonu Gosa woo ko dem fa. waaw waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa koy di nga ma fenal laay man sama ngañ ñi man sëñ Habib Diagne kay moom xam naa ni moom léegi léegi laay jóg seet ko leen ko raas nga da def la dëgg dag da bi da dabi dabi dabi dag da dabi dabi ay waay yu dëgg dëgg sëñ Habib waaw dëgg laa ne dal dal fa dal fa tabe tabe dab la dëgg dag da dëgg da da da da da da da dëgg cegi cegi cegi dama koy denc waay waay waay déglu ko dama la ko jox dama la ko jox waay waay waay déglu déglu cegi cegi cegi raw raw wax ko déglu woon boo ko dóorul woon noo ci tax ci góor Saalum bi. ah boo ko dóorul woon. kon doo ma ko jox. waaw xaaral ma ma ma nga xàttee. ni nga soxonee ci góoru Saalum bi. waaw waaw mooy sama mooy sama doole. waaw sa doole. yow rek nga xam fi mu ne. moo tax mu nekk chef bi. waaw. ay la. sur woon ak moom. waaw. dama nekk chef xam naa la. ah, ah waaw. ah man damaa baa doola. ah yow bu mag. ah xam naa yi ma la koy jox ngay nekk sa xel. waaw ah. fi mu fi jeexee keroog. Ah. lu ne yegg nga mag. ah waaw. waaw waaw waaw waaw. Adama ba Saalum. ah jeex. jeexul ah ko denc. waaw non naa ko waaye dama koy dama koy dem toppatoo. ah waaw. dama toppatoo. soxla naa ko nag. ah waaw. dama la mu sanguwaale. mënu ma ko. ah mënu ma ko. mënoo ndox loolu mënu ma ko. ci la mooy ma waaw yow lan wala daal jinne dalaa doon métti xanaa. Ah, ah damaa bañ rek te te di nga ma jox góoru Saalum. fa ak ma itee. déedéet essayé wu ma galaaj la bu fekkee ni nga si jot yàlla naa dee tamit juróom-ñaari safara. Ah. da nga jaaleew fi nga may fekk doo jot. da ngay seef. mën nga naan da ngaa ah waaw. ah. waaw. jugaleen safara affaire bi. non non non maa bañ. cere bee ba suukar si moom sax bu baax de. tuut ah? suukar rek ceeb ah? meew ceeb meew. tuut suukar tuut ah tuut ah? sax du ci am wala ma xorom ko ba mu saf sàpp kaani ko. bu xorom jox indi ko noonu rek. non doo ko jox. jotuma déedéet. yow da ngay doo jot dara. kafo waaye tëjal sa lamiñ bi waaye yow. waaw kon jotoo. ah jotoo. loo ma jox. tus ka jotul. sa xarit boobu ñëwoon na fi di la seet. kan la. ci jaay gi jaay bi. faama la waaw. faama la dafa ñëw. ñëw na fi ñëw na yow Fall waxoon naa na fii nga toog la toog de waxtaan nañ lu yàgg sax. da waxtaan. waxtaan non non moom waay. ah lan moo ci nekk ci xam naa ko Fall la xam naa fan xam naa fa fa Fall la xam ko. Fall dafa dafa mën teg dil de bu waxtaan ba waxoo ko dara. ah non ko dara moo ma wax. lu ah, ay mbir rek. Hmm. ay mbir. waaw waaye nag tuddaloo góor xam di gone waaye. waaw gis nga jàngoro. waaw ñi yàgg ak moom ñëpp dañ koo weerul jàngoro danga nga koy weer yow da nga kaa wax da nga kaa wax affaire ah wax naa ko wax naa ko wax naa ko fi ma toll ak lépp nag waxtaan nañu waxtaan nañu nag. way yow waxtaan nañu. mu wax la ci lan. ah waaw waxtaan nañu rek waxtaan naa waxtaan wax naa ko li ma dal ak yëpp de. mais utul lu benn solution. ah am naa solution am naa solution. am naa solution am naa solution. am naa solution unité neuf. eh Ka eh, mais mais Faama la da laa sawaay sawaay. lan la eh, eh, dama lay wax delloo sa baaraam sa bët laa koy dugal léegi. Ah, kon ma def la lu bon. sawaay dalaa wax dalaa dalaa dalaa dalaa waxe sëñ bi ah déggoo ma ne la jattu couleur nañ leen ko raas ah dama dama dama gi nag dana gi nag ah, ah waay moom kay kay ku kay ku santul jàttoppal fële Famara moo dàq fen fi Famara fenul dëgg la wax et puis Famara ne waaw baleen seen jikko nit ku ñuul ñii ngeen yor soxor ngeen lu ngeen jot nit mën cee jëfandiku waaw koy ku koy def baayam du bàyyi keneen. yow waroo war a faamal sa feebar ko sénégalais yi ngeen yor. faamala wu war a xam sama yomb. lu baax da nga koy tas weer ko. waroo war a faamala da ngaa yomb waroo ko nag loolu man lay yab. yoomoo man maa yoom. waaye léegi nag sama yoomu faam. waroo ko woon bilim sa yoomu bàyyi sa yoon newu ci man maa weer sama bopp sa yoon nekku ci. mais man man man man. loolu sa merde loolu sama yoon mu ci. sama yoon mu ngi ci waroo ko waroo woon a jëf si mbedd bi di wax di di wax. yaa ma njëkk a weer ñii di jaay légume ak ñii jaay taabal ci koñ beeg ñi ci buntu jàkka jeeg ñëpp xamal nañ ma ko waaw. mais bul génn kër gi naan da ngay ay fancé. yow yaa ma moom ba dër. yaa ngi nekkatuma seen unité neuf laa jëm nii ca case de case de santé ba sëñ Jakay dama koy seeti moom. non oh, man tey lay lay tey lay lay tey lay lay faam wala tey lay te laa koy ubbi. waaw ah, tey ngay ubbi lan. faam wala tey tey tey dinaa lay. tey ay ubbante lay doon rek de kon. faamara moom gënoo koo réew. faamara day jaay dafa a duul <laughs> day jaay man lay fenal di jéem a jaay ay fenal waa ko naax bul ñëw fi di la expliqué dal loolu moo tax ma nekk chef mu ñëw di la wax tey ci jéel bi laay fanaan ah Famara dama koy lay tey yow ajo tey yow tey nga ma jéggi maa maa ngi nii dem yow jaral na la ko dolu sall bi jaral na ma loo ëpp lool te yow sama amul woon lu may lu si yow yow sa dund bi tey lay yem ñaanku ñaanku déglu dama lay wax déglu dama lay wax lan nga fii woowee Famara moo ñëwal boppam man jógewuma fi léegi yow laay bàyyi nga àggale ko dootuma fi jóg dootuma fi jóg àggaleel sa yéena ci man. wala tey lay lay tey lay. lii àggaleel sa yéena ci man tey lay lii liti liti àggaleel sa yéena ci man. yow de xam nga ni war gannaaw a tere ma dem ca sëñ Dia.